jërë ngeen jëf taal Sénégal ku koy jéemi da ngay sonn rek waaye du sotte ndax duñu ko seetaan kaddu la yu bawoo ci sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amine l'observateur nañu kaddu yaa ngi moom porte parole njabootug Seydi Hadj Malick Sy gi démb la yëkkate yooyu le kaddu ba muy dalal politiciens yi ci réew mi Abdoulaye Baldé Khalifa Sall yi Idrissa Seck ak Omar Sarr ñoo daje woon démb ca Tiwaawoon ca kër Al Amine sëriñ bi xamal na leen ne daje bi ngeen daje fii du ak neen ndax Abdoulaye Baldé ak la ñu bokk kii di Idrissa Seck moom bu weesoo ndayam bi ko jur ñoo di ay waajuram ne sama penk ak bu sëriñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum ca la màggee al amin ne réew mi ñëpp a ko bokk duñu seetaan ñu di ko yàq ne bi coowal pétrole bi jugee ci réew mi mag sëriñ Bay Si Mansour dañoo ñaanoon audience président Macky Sall moom président moo ñu xamal ci làmmiñu boppam ne dina góorgóorlu waggar ci ba pétrole bi lépp lu ciy tukkee doon jariñu Sénégal al amin ne waxtaan nag président Macky Sall sax bi ci mbiri Karim Wade la ñu wax nag man ak di ko wax ndax bëgguma ko soppi ma ne leen waxtaan nañu ci bëgg ngeen xam ne ñun kilifa diine yi suñu loxoog suñu ñaan du ci réew mi Serigne Abdoul Aziz Al Amine ne ganam ya ngir njariñu réew mi xelal naa président Macky ngir mu fexe ba toog a kujjeg politique yi ñu waxtaan ba waxtaan wa noppee ca ñaanaleen ñu jug dem ba ñu génnee la sinekaay da a dab ci buntu bi laaj leen lu ñu xalaat ci dialogue bi Serigne bi wax seen digg ak Macky Sall bi nañu waaye Idrissa Seck consort dialogue boobee soowuñu ci ne moom Idrissa Seck li mu wax moo di président Macky a a dialogu lumu ak dialogu fumo Mamadou Lamine Diallo bu mouvement tekki nañu li président war a def moo di jël engagement ne wootee député yi di élection législative yi fichier 2014 bi la ñu cay gannaaw bu ñu ko audité ba noppi noppeeguñu ca Tiwaawoon ak la fa xew yëral xët mu njëkk Le Quotidien Ousmane Tanor Dieng nga fa nekk ma nga woon ca Tiwaawoon bërki démb ca kër Serigne Mbaye Sy Mansour fa la waxee ne moom Ousmane Tanor Dieng bu nekkee ci wetu Macky la ko saa ngeeñeen waxee sëriñ bay si Mansour sëriñ si borom daara ji mook maamam ji Seydi Hadj Malick si seen nataal ci xët mu njëkku direct info journal bi xëy jël tempsam bu dëgër El Hadj Malick si radiyallahu taala anhu li ba ca Tiwaawoon lépp direct info xëy na ci noppi ca dal ci borom daara ji wax ñu ci ba xamal ñu ne li mu fi bàyyi woon mu di ay souvenir ba fi mu nekk ni dara sikku ci gàmm gi ñuy wàcc réew mi réew mi quotidien xëy na ca moom it mawlud géeg fa mu jóge ak lañ ci jublu journal bi ci la nekk tey ci suba démb moo ne woon bëccëg gi ñu jagleel nañu ci njum la ko doon màggale ci teewaayu njiit réew mi président financement yu xiirtal nit ñi ci càmm moom la gis ne moo mën a suqali càmm gi démb ba mu demee ca njum ci journée élevage may nañu ko fa juróom-benni téeméeri nag ak fukk ak ñett 613 bëf ngir mu mën koo jaay fay ci caution ci élection présidentielle yi 2019 yi direct info di laaj la am ci réew mi nu ci gouvernement bi war a taxawee ndax Sénégal bu doonu jàmbat loolee journal bi laaj ana lu koy réglé ku jëg politique geeg li ñu nekkee kañ lay réglé la tribune ñu opposition bi li leen nar a yàqal moo di ñoo ngi bëgg a jàmmal ak te ba fi nekk ni amuñu njiit kenn ci ñoom nangul sa morom jiite la njiit réewum di Erdogan mi ngi ci enquête dina kaay li réewum Turquie bëggoon ci Sénégal mu di école yi Yafou Selim ñu tëj ko enquête di jëwriñ gemee wàllu njàng mi ci assemblée nationale la xam école bi nag waaye ña ko yoroon dañ koy nangoo ci ñoom ñun ñu dem seeti xibaar bi nekk ci Vox Populi xëy nañu xamal ne lu ëpp fanweeri jihadiste ñoo ngi ñu tëj ci kaso yi ci réew mi